mbokki internet public SNTV asalaamaaleykum ñu ñëw ak yéen ak xibaar bu ñeel wàllum teggi ndomal tànk bu Mamadou Lamine Massaly ca poste président de conseil d'administration bu mu doon diriger foofee ca office national de formation professionnelle ONFP démb nag ci ab jàmmaarloo bu mu doon amal ak kon taskatu xibaar yi la xamle information boobee foofee sa Thiès moom nag ba mu ca noppee moo ngi doon gërëm njiitu réew bi fi nekkoon di Macky Sall ci kóolute bu mu amoon ci moom loolee ko mayoon nag bu mën a amal liggéey bu am solo ca foofee ca ONFP lépp lu ñeel wàllum développement wu Sénégal ba mu ca noppee nag moom Mamadou Lamine Massaly dal na ci nguur gu bees bi yi nga xamante ne gis na ni commencé nañ montré ay limites ci yenn domaines yi nga xamante ne ñeel na wàllu marchand ambulant yi coowu meññee yi fi amoon ci wàllum wàññite mburu bi boroom moto jakarta yi chauffeur yi ak seen coow beeg El Malick Ndiaye ak ñi nga xamante ne ñoo di baykat yi Mamadou Lamine Massaly bi nekk président Union Ousmane Sonko génn di wax ni assemblée nationale suivre programme sur suñu plateforme digitale YouTube Facebook ak TikTok